am yoo xam ne sunna mu akkada la am yoo xam ne sunna la xayru mu akkada am man duub loo xam ne bëgg nañ nit def ko am loo xam ne xaraam dafa aram nit def ko am na loo xam ne makruh dañ koo sib léegi nag buñ buggee xam tabaski yii ma lim mu nekk ahkaamu hukmu shar'i attey eh, jaamu yàlla yi ci sharia ñu xam tabaski ban la ci kon dañuy gis ne tabaski al udhiya comme ni ko seex useymin waxee mu ne sunnatun muakkada lil qadiri alayha tabaski sunna la soo xam ne dañ koo feddali dañ koo dëgëral ci nit ki nga xam ne mën na ko kon ginnaaw farata sunna mu akkada moo fi tegu sunna mu akkada mooy loo xam ne nit su ko mënee rek wàcc ko foog mu def ko parce que mën na ko tabaski nag loolu mooy àtteem sharia day sàkku ci ab jullit bi nga xam ne mën na ko yàlla def na ci poosam dara yàlla def na mu am loo xam ne mën na ko jënde ab gàtt jaamoo ko yàlla loolu la sharia wax ci waa jooju ne gàtt boobu foog mu dem jëndi ko mu rey ko ngir jaamoo ko borom bi tabaraka wa taala mu ne fa yudhil insaan an nafsihi wa ahli baytihi nit day gàtt boobu tabaskee ko ndax boppam ak waa këram kon ndeke tabaski du yow rek waaye yow la ak sa waa kër lool moo tax soo ko mënee mu nekk sunna mu akkada sunna soo xam dañ koo feddale ci sa kaw mbokki jullit yi Cheikh Ousaymin ba tey mu ne sunnaal nañ ci nit as sunnatu an rajul yudhi anhu wa an ahli baytihi sigaaran wa kibaaran boroom xam-xam ba nee na sunnaalal ci nit ki ci góor mu daa di tabaskee ab gàtt moom ak waa këram ndaw yi ak mag ñi ñëpp daf leen di boole ci gàtt boobu ne liikat sama tabaski la man ak sama waa kër xale yeeg mag ñi su ko defee tabaski boobu mbokk jullit yi dafa am ay charte mu ne maa hiya surutul uduhiya lan mooy sarti tabaski tabaski ay jur la yoo xamante ne sharia moo sàkku ne jur yi benn ci ñoom la nit ki di jël jaamoo ko yàlla an ba min bahimatil an'am foog mu nekk jur yi nga xam ne doomu aadama miin na leen dañoo miin dañuy miinaate wala doomu aadama da leen di yar ci këram ba pare sharia daganal ñu leen di lekk yooyu benn ci ñoom moom la jaamu yàlla bi di jël daa di koy tabaskee ba ca jiitu mooy al ibil loolu ñu naan gëleem ñaareel ba mooy nag ñetteel ba mooy xar ñeenteel ba mooy béy ñeent yi ki nga xam ne mën na ko am na moom la sharia wax ne na jël benn ci yii mu daal di koy jaamoo yàlla waaye dañoo bëgg bu dee ku taba ku aji la moom lañu bëgg ci moom mooy gëléem ak nag ka aji moom gëléem ak nag lañ bëgg ci moom ki nga xam ne ajiwul nag moom xar ak béy loolu lañu bëgg ci moom allahu akbar waaye nekkul tamit rek suñ la nee da ngay tabaskee gëléem wala nga tabaskee nag wala nga tabaskee xar wala béy rek nga dem jàpp bu la neex rek daa di rendi am mbote benn ci yooyu rek am mbote daa di rey déedéet charia mi la wax na nga tabaski daf laa wax aussi ay charte benn bu nekk ci ñoom ana naka lay toll ba mat ba nga jël ko jaamoo ko yàlla mbokk yi bisu tabaski boobu nga xam ne doomu aadama day jël gàtt daa di koy tër daa di koy rendi tuural tuural yàlla deret loolu nañu yëg ne seytaane da ciy laxasu yenn saa yi ba du bàyyi doomu aadama def ko seytaane yi xam ngeen ne dañoo bëgg deret léeg doomu aadama feebar nga dem ci buxaaba wala ab xërëmkat wala ab seetkat wala ab gisaanekat wala ab xoy mu ne la pour nga wér foog ñu reyal la gàtt foog ñu reyal la nag benn melo gëléem benn melo xar benn melo wala bëy benn melo looloo tax seytaane yi bu ñu gisee bisu tabaski li ñuy tuural yàlla deret ni jaami yàlla yi nangulee yàlla ba koy tuural deret ñoom dañuy mer bisu tabaski seytaane du ci kontaan looloo tax yenn saa yi mu bëgg a yàq tabaski nit nga gis koo xam ne day tabaski ba pare du ci lekk naan man bu ma lekkee yàpp tabaski damay feebar wala bu ma deretu tabaski laalee damay feebar ndax seytaane yi ñoo koy def wala du ma sol mbubu tabaski tabaski moom sama yaram bi day dee lu nekk ngay dégg nit ñi di wax aadama bi iblis wala seytaane fexe ba boo koy rendi mu ne la tànqal ci deret ji wala boo koy rendi mu ne juble ko place sàngam wala boo koy rendi bul ci tudd yàlla te xam ngeen ne lu ñu rendi ci tudduñ ci yàlla loolu araam na lekk ma maa ngi leen di fàttali bu baax a baax tabaski ki koy rendi bismillah allahu akbar allahumma haza minka wa ilayk loolu ngay wax mooy tandikul maa ngi lay mooy tandikuloo yow sama mbokk julit ngay rey tabaski di tudd keneen wala ngay wax leneen lu dul yàlla tabaraka wa taala maa ngi fàttali mbokk juli yi aussi képp koo xam ne xam nañ ne dafa rey tabaski bi te tuddul turu yàlla leneen la ca wax nañu yëg ne yàpp boobu araam naa lekk bu yeboo rek ñu jël yàpp ma sànni ca mbalit ndax lépp lu nu rendi tudduñ ci yàlla wala dañ koo rendil kudul yàlla laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te rendilul yàlla maa ngi dénk loolu sama bopp di leen ko dénk ñu góorlu ba tabaski bi yàlla rek tax kon mbokki jullit yi sharia dafa am ay weer ay at yum ñu indil ci jur yi ñu war a rey su fekkee xar la xar mi na am juróom benni weer kuy mi na am juróom weer su fekkente ne ci béy la na am at su fekkente ne ci nag la na am ñaari at su fekkente ne gëléem la na am juróomi at ndeke yow mi war tabaski te nga war rey benn ci yii bul dem rek def lu la neex xoolal li la sharia sant nga xam ne boo ko defee sa jaamu yàlla ci lañ koy nangu ci jur yi ma wax benn bu nekk nga xool ndax kat am na weer yi islaam wax wala am na at yi islaam wax te mooy sharia su ko defee nga doog a jël loolu daal di koy rey jaamoo ko yàlla tabaraka wa taala bu fekkee ab xar la kuy mi nga war rey na am juróom benn weer su fekkente ne ci béy la na am at su fekkente ne ci nag la na am ñaari at su fekkente ne ci gëléem la na am juróomi at waaye ba ca tegu mooy an takuna salima min al uyub al maani min ajza wa hiya al awar na nga fexe aussi ba mu sikk ba bu mu sikk ndax am na yoo xamante ne xar mi mën naa am at yi wala nag bi mën naa am at yi wala gëléem gi mën naa am lii ñu wax waaye kat ndeysaan dafa am ay manqué manqué yoo xam ne moom moo tax ba xar mi kenn mënu ko tabaskee ba ca jiitu mooy xar mi bu mu pat wala gëléem gi wala nag bi wala béy bi bu mu pat bu mu nekk fee bu mu feebar bu mu làggi nekk bu lagaj géen gi bu mu dagg ca kaw bu mu am bu yooy boo xamante ne daanaka der beeg yax yi ñoo ñoo taqaloo daanaka yàpp amu fa der ak yax kese la yooyu yëpp dañ koy bañ ci tabaski bu mu nekk bu béjjén bi damm yii ñu wax su fekkente ne yàlla tabaraka wa taala dimbali na la ba xarum tabaski bi nga yor wala gëléem gi nga yor wala nag bi nga yor wala béy bi nga yor toll na ci yiñ la wax ci ay at ba pare mu daa di mucc mu rëcc ci manqué-manqué yii yëpp ah yow nag yëgal ne am nga tabaski li fi des mooy nga sellal ngir yàlla tabaraka wa taala nga def tabaski ngir yàlla ndax yàlla tabaraka wa taala nangu sa tabaski comme ni ko borom bi di waxee ne lan yanaala allah luhumaha wala walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawu ma yàpp bu bari bi soxlawu ma deret bi soxlawu ma ci dara li ma soxla mooy ragal yàlla gi la poussé ba nga dem jël sa alal jënd ko ab gàtt bu mel nii bu mucc ci yëpp nga ñëw tëral ko ngir yàlla di ko rendi ngir moom yàlla ko yàlla nangu yàlla na yàlla nangul ñun ñëpp ñoo ngi jégglu te di leen ziyaara yàlla na yàlla may ñu fekk nege ni déwén asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.